géej gu dal gaal yi nekk ci tefes gi benn tëmul géej lu ko waral moo di ni seeni boroom nekk ci njàkkare ndax ñett ci seeni ay ñoñ ñoo dem ci géej gi talaata ba léegi kenn mënu leen a gis tubaab jalaaw gi ñu ne tey foofee la nappkat yi dëkk ki njëkk àddu ci mbir bi nag ndijaay la ci kenn ci xale yi réer ci géej gi waaye tamit di mbokk ci ku moom gaal gi jaaxle rek lañu def ñoom ñëpp jamono ji foofee ci Touba Jalaaw ki moom gaal gi sama jarbaat la ah, sama doomu mag mu ngi ci ak samay sët ñoom ñoo ci nekk kon mbir mi daanaka sunu mbir la parce que du ma ni sama mbir la mais sunu mbir la waa depuis talaata ba léegi dëkk bi yëpp gox bi sax laay wax diggante tubaab jalaaw ba yeen ba ndayaan yëpp kenn nelawul géraw yëpp kenn nelawul ba Tiwaawan sax kenn nelawul kenn nelawul waaw boobu ba léegi danoo réerle te réerle bi ku nekk xam na ni réerle dafa métti juste géej tu ay xale yu ndaw waaw métti na trop trop trop kenn xamul fan la nekk waaw kenn xamul ndax lekk nan kenn xamul ndax ñu ngi naan kenn xamul ndax ñu ngi dund loolu métti na trop trop trop trop trop trop ah ñun nag dañuy ñaan yàlla suñu borom rek ñaan yàlla suñu borom yàlla niital ñu ko yàlla niital ñu ko si barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu rek la ñaan yàlla ah di gërëm dëkk bi yëpp di gërëm dëkk bi yëpp tubaab jalaaw yëpp yëpp yëpp képp ku fi yewoo tund wi yëpp képp ku fi yewoo ñu ngi lay gërëm di la sant waaw parce que wax dëgg yàlla bi mbir mi amee ba léegi xale mag ndaw kenn nelawul kenn noppaluwul lu waay xam lu waay yaakaar lu nekk yaa ngi ci lu waay yaakaar lépp yaa ngi ci pour mbir mi jàppandilu pour mbir mi feeñ. ba tey ci mbokk yi ñu ngi fësal ni ñoom dañoo yéex a jot xibaar bi ni nappkat ji réer nañ ci géej gi ba tax na loole andi na leen ay jafe-jafe. samedi lañ ko yëg si guddi. min ko yëgee samedi si si ngoon bi noonu parce que moom ñoom fi ñuy nappee dafa sore dafa am profondeur lool ay cent quelque kilomètres lañuy nappee nappee ab si si biir géej gi. mu loolu dafa sori si gaal gaalu bois yi léegi ñoom napp nañ ba war a teer si jeudi biñ départ daal dañ information bi ñu ne dañ départ rek machine bi paan si yoon paan léegi gisuñu la am na beneen gaal bu ñu nekk loon gaal boobu bi mu teeree après moom moo ñu jox ne diw de ñoom ñoo wax ne diw de teeruñu mais ñoo njëkk a départ après nag ñoom ñu woo borom gaal fekk dafa ñoon tubaab jalaaw fii léegi ñoom dañ jógoon fi campagne yaraax mais ñu ngi nappee côté du Joal bi à profondeur cent sept kilomètres loolu dafa xóot sa foofu lab bi la ni ko moo li di waxee lab bi la boo fa nekkee sa corde du dal du laal suuf parce que profondeur mu am waaw yàlla rek moo la fa boo fa paanee ndimbal moo la fa mën a jëlee parce que sinon daf lay sànq depuis nag loolu moo ñu tiital depuis samedi si guddi nu commencé jóg def ay demes def ay demes fekk borom gaal gi woo nañ fi wax ko ko après yéex a am tamit. sonal nañu fii Korsi aussi parce que bi mu amee dañ ko yéex a yëg aussi léegi nag biñ ko yéegee nag dimanche ñun dajaloon nañu fii si mbaar mële penc mi ñu toog ak jeune dëkk bépp ñu waxtaan. ba tey ci tubaab jalaaw ab na ñoo xamante ni rafetlu taxawaayu meeru gox ba waaye tamit di sàkku rek ci jëriñ bu ñu dénk wàllu napp gi ñu taxaw ci li ni mel la. mais lii nii ba amee nun xam nga kan la noo ministre de la pêche ki xam ne moom moo yor wàllu géej gi Alioune moom la noo woo xamal ka ne que nun ay doomi lébu lañu géej lañu yaakaar mbir ba amee si géej ñëw la def ban la ko waxee ba fekkee yëg naa ka li war a def mooy tëmbalal marine bi wala hélico bi ña seet ban gisee ban ñëw nag lépp la war nu door kaa def gis na tey gune yi ba ñu ñëwee bekken ëpp na 2 milliards nun bay nu laajoon 2 millions dinañ ko lijjanti parce que baa xoolee ñaati gaal ñoo nekk fii ëpp na téeméeri gaal gaal ga nekk ba joxe 100000 francs ña fay loolu baa xoolee tey jii dama naan maire bi Yaraax Babacar Mbengue tey ba ma doon fal président de la république moo la ma jox parce que il la le moo fi def la fi kenn deful wax fi la fi kenn waxul maire yëpp ba ñu dem meloon nu moom kon lépp a sotti mais nun dama ne nun jalaaw amun am maire parce que amunu maire li tax moo ko mooy booba léegi gisuñu nu maire dëgg ab tànkam fii te nun noo am tiis wi lii nun la dal mais gisa gune yooyu incha allahu rabi yàlla mii maye ndege muy béykat yi ña ngi fi guddee di ñu ñëwaat si jàmm asalaam. foofee ci tubaab jalaaw ak yenn ci ay quai de pêche rawatina ci yaraax Joal ak fépp fu mool nekk yaa ngi dugg ci géej gi di wër gone yooyee. man keneen ki su ma naka la su ma doon maa ko yar maa def lépp man fan yi mënuma liggéey ndege metti boobu man démb dama mënuma téye sama bopp du ma leen démb bi gaal yi teeree fii gaal dañ fanaani woon canal bi benn bi sax sànq la tëmbale matin bi ni fanaan woon mais biñ teeree ñu ne fanaan nañ gisuñu bàyyi nañ gaal yi ñoom dañ bàyyi fay seen gaal yi mais muy vent bi di koy yóbbu rek ñoom daw nañ trente kilomètres vent bi sànni leen trente kilomètres xoolal loolu après nag foofu sama xol ji am na tuma tey sama may jooy sama doom yi nu may jabar parce que boobu sama xol fees na ma ne ñi fanaan tey rek faay vent bi yóbbu leen trente kilomètres. mais image ñii nekk si géej bi la est ce que ñoo sànkuñu loolu moo ma jooyloo mu affaire bu metti bu metti fokk natt rek weesu na ko waaw c'est que nag nit du aadama dañuy yëg da nga naan man am naxar kii mooy yëg métti bi kii du sama doom du ma yëg métti bi parce que dund boobu la ñuy dund léegi xam mais ni ku ne boo xooloon que ne kii dal lii doon sama doom la nii lay def ma jóg def noonu kon affaire bi yàlla man si saafara sax du yegg fii. ci àllarba ji ñenn ci ndaw ñi daal dinañu jël gaal dem wëyal lu jëm ci wàllu wër gone yooyee. parce que man mii di wax ak yéen ni ñooñu samay jarbaat lañ parce que man ak seen yaay ñoo ko yaay boobu gaal gi ñu déggoon tamit sama mag moo ko moom. moo tax bi ñu demee ba léegi ñun ñoo toog dañuy wër daay man abadan ñu ngi si géej gi parce que démb demoon nañ géej gaal gi lañ yóbbu woon te xam nga ne gaal gi dafa ndaw si biir géej am na geneen beneen beneen konoot bu ñu joxoon sax mais ba tey konoot bi mook gaal bi ñoo toll dafa dafa ndaw ñun démb bi ñuy dem parce que rek am nañ 300 kilomètres si digg géej gi nii si la ñuy soog a beer jëm tànk tànk tamit daw nañ fa cent 150 kilomètres ba tey mënuñu gis gaal gi mais daw nañ foo xamante nii dem nañoo dem a dem a dem ba suñu gaal yi mënut ñuy antal ndox moomu noonu parce que gaal ndox mi lañu war a yem mais dem nañ ban génn ndox moo xamante ne ñoom waruñu fonctionner foofu noonu. ñu desandi ak moom ñëwaat na ci lu mu jot a dund ak kenn ki bokk ci ñi réer ci géej gi. loolee day firndeel ni waatu tubaab jalaaw ak njaboot gi ñu ngi dund lu metti jamono ji ñuy wax ak génn. kooku sama jarbaat la fu mu mas dem si àddina man ak moom ñoo fay ànd bi mu bi mu yaraax fi bi ma fay mujjee. dama tëmbal sama gaal guddi laa fi tëmb teer foofu ba ceeg suba teel parce que dama finaan ji woon si géej la ñuy finaan ñun ñëpp parce que loolu mooy suñu liggéey bi ma teeree si këram laa dal ma ñëw juste fekk mu dem géej heure añ bi ma jotee daf ma oo téléphone si géej mu a ma sama añ mu ngi foofu noonu jël ko nga añ ko bul ma xaar parce que boobu moom xam na ne parce que boobu moom xam na ne waaw moom xam na ne man mënu ma teer mënu ma ko xaar bu moom mu yëgsi moo waral mu oo ma téléphone mu ne añ bi jël ko nga añ bu ma teeree man naa lijjanti lu ma añ ah noonu laa mujjee obligé wu moo tax depuis loolu noonu bi mu amee ba léegi nii man aw ma jàmm aw ma salaam tubaab jalaaw ñëpp mobilisé wu nañu mais ba tey amuñu si renseignement boo xamante ne nii leer nañu papaam sono na yaayam sono na ay moom bàyyi na fi soxna soo xamante ne soxna bu ndaw la yàggu ko takk benn doom rek la am ak moom te pour l'instant dafa bàyyi si état boo xamante ni état bu doy waar la bu ñu amoon ku ñu dimbali nag pour l'instant ni bu ñu ñi iri yi mu mat ñaari irikoo wala benn sax ñu xool ko foo xamante ne nii fa la toll si digg géej gi parce que xalaat nañ ne pour l'instant nii newul géeju Sénégal parce que bu neewoon géeju Sénégal 300 kilomètres yi ñuy daw dinañ dal ci kawam. kilifa yu nekk ci tubaab jalaaw ñu ngi woy di amal ay ndaje ngir mën a rek andi ay xalaat yuy tax gune yi mën a feeñ ginnaaw si nekk bu ñu demee napp ji ba tey mënuñu leen a gis ñoom la ñuy fësal nag jamono ji mooy meeru gox ba daanaka ñu ngi koy woo mais mënuñu koo jot moo waral ñuy sàkku rekk ci nguurub Sénégal ñu daal def seen kéemtulaay kàttan ngir mën a gisaat ndaw yooyee. ndax réew mi soxla na leen rawatina askanu tubaab jalaaw